décret boobu dañuy wax yow fan nga jëlee këyit fan nga ko jëlee mm-hmm. fi nga ko jëlee boo saaganee sax mun na dem ba yenn saa ay trois décennies ci ginnaaw normalement mm-hmm. yaa ngi dégg mm-hmm. bii nag ci euh, euh, euh, séddoo foire ba la bokkoon séddoo foire ba ñëpp xam nañ li fa xewoon séddoo foire ba ñëpp xam nañ li fa xew dem leen ngeen xool foire ba ñan ñan ñoo fa dëkk cité kër góor gi nii Abdoulaye Wade moo ko daggale moo wax moo wax Tahirou Tahirou Sarr la yónni pour Tahibou Ndiaye la yónni pour mu daggal ko cité foire ba Tahibou Ndiaye moo ko defaral Taïbou Ndiaye c' était un petit de Ousmane Sonko. Euh, c' un grand grand de ah, Ousmane Sonko. ñoom ñoo doon ànd dem sax pale moom la doon àndal. en mais bien sûr parce que xaritam booy booy booyam la woon c' était son bras droit. ñoo doon dem di seeti Ablaye Wade loolu am na fi wala amu fi. dëgg ah ah kon jeex na moment boobu nag. si la ñu daggee affaire yi ku nekk am nga képp ku njëkk am nekk premier propriétaire ci suufu kii la plupart dañ dañ la ko may. titre global la. voilà c' dañ la jox sa wàll di ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko séddoo ñoom seen biir ñoom le même système dañ na mairie changé man ñu ko séddowee noonu noonu la ñu séddowee foire ba noonu la ñu séddowee euh, corniche ba a yam corniche ba lu ñu am droit de ndox ci géej gi boo ñëwee ñun fii amuloo ko jox mais ñoom ñëpp la te ñoom kan woon ñoo ko daggate boo demee ci ginnaaw aéroport bi c'est la même chose man maa leen mere man maa leen mere parce que xam tax parce que gis nga yu mel noonu waruñu sax di ci séddoo lu ci am wàlla parce que dès l'instant que yaa ngi liggéey nga am sa salaire sa salaire u bopp ñu jox la ay avantage ba di la jox sax ay fonds communs même si je ne suis pas d'accord mais même si c'est légal en même temps waruñu la jox bu fekkee da nga bëgg ci suufee da nga war a jënd kenn waruñu la ko may parce que tout simplement ci ngay liggéey parce que yëfu du affaire privée du affaire privée affaire yëfu yëfu jàmbur la ñëpp ko bokk suuf boobu ñëpp ko bokk bu ñu ko naree jaay mu mu war a def xaalis xaalis euh, da ko war a jënd pour xaalis boobu ñu jëm ko sax dugalaat ci. ci ci ci ci keesu nguur gi d'accord na waaye ñu leen di jox gratuitement parce que ci ngeen liggéey ce n'est pas normal. mais loolu Aliou Sow la privé sax day jël ay suuf. non dama ne privé non nga jël sa suuf après nga def li ngay def après nga maye. ci dama ne da nga war a fekk ko fa. non suufu état laa que waaw waaw Aliou may leen euh, comme damay jéem a discipliné. xaram da ma laaj ci déclaration Mansour Faye bi nga hmm. ne. Saliou demoon fële au niveau de lof nag je crois que dañ fi tolloon jamono boo xam ni dañu exiger woon Pa Moussa ci conformément au texte et règlement qui régissent euh, l'administration sénégalaise ñu am loi boo xam ne dafa ne képp kuy administrer euh, une société wala une fonction boo xamante ni dinga am budget bu toll ci un milliard obligatoirement da nga war a def sa déclaration de patrimoine je rappelle que même le président de la république à un moment donné il avait tapé sur la table en conseil des ministres parce que am na ñoo xamante ni def seen déclaration donc pour man euh, bi fekkee ni bi ngay jël fonction defoon nga déclaration de patrimoine lii yoon mooy sooy génn nga dem defaat fiche bi wane ni bi ngay ñëw lii nga amoon ci alal booy génn lii nga am parce que sànq boo gisee mooy souligner président Bassirou Diomaye Faye li mu def ak bi mu posé en tant que candidat su ko neexoon mu bañ ko def yépp gis ko te alors que yoon li mu may woon mooy bu demee ba nekk président mhm. mu doo ko def du dëgg mhm. buy génn président ñu doog a génnee la mu la mu wane woon donc pour man euh, ci wàllu bonne gouvernance ak ci transparence ak redevabilité bi nga xam ne moom la ñuy wax par contre euh, si ay mbir xam nga maasur Faye am na ko ko fu waxoon dara mun na ko boo mu ko waxaatee ma porter la plainte mhm. ku boot bukki xaj boobu la. parce que tey euh, moo ngi yore woon ay fonction ci wàllu Covid bi. gis nañ euh, Cour de comptes li nga xam ne génnee na ko. Mm. moi j'avais toujours dit dafa mel ni dañu wut ay bouc émissaire parce que on a épinglé que les DAGE par exemple. Mm -hmm. pas prendre la responsabilité toog fii sax di tudd nit naan diw def na wala diw deful. Mm. pour man ñi war a lijjanti ndax diw def na wala defut ñu ngi ci état bi am nañu instrument nañu bàyyi li may bañ kay. mooy nga tourné yem ci kilifa ne kilifa nangam fond culture urbaine lii je suis pas dans mais man pour man lii preuve la bi muy romb foofu di fa dem amul garde corps amul chauffeur moo demal boppam lii li mu war a jàngale mooy mën nga nekk ci nguur boo mm. paree ci nguur suba di nga dem ci kujje ba ci lépp luñ la dénk nga jëm ci doxal ci njub ba fu sénégalais dox nga siggi Mm-hmm. mën ko mën a mën a romb mais xam nga tey am na woy woo xam ne boo ko bàyyilee sa bopp dina la topp topp sa njaboot du dëgg. Mm-hmm. Euh, je veux pas citer de grand nom am na benn responsable politique bu mag bu nekkoon fële ci Kaolack yàlla ko yàlla yërëm biñ ko waxee dafa ne euh, tableau dañuy ñëw di di traquer. Mm. mu ne leen li ma sàccoon yëpp waa dëkk bi laa ko jox. <laughs> non bëgguma citer tour grand ne viens non oui mais ne viens grand grand cest à maa yow bokkuñu culture yow culture parisienne nga am man culture pikinoise laa am comprendre nga am na loo xamante ni man man mu bugguma toog di jël ay nit di leen jeter à la pauvre wala et cetera public la ko wax ah, loolu ci mbedd mi moi j'ai faire parce que <laughs> l'essentiel a été dit madame merci <laughs> <laughs> la déclaration de patrimoine de de Mansour Faye sorti après exercice bi Euh, ndax dafa war a inspiré tey ñeneen ñi nga xam ne ñoo nekkoon yëpp aux affaires. Oh. du ma boole xëy na wax ju bëri du ma naa gis naa image bi démb euh, la première question c'est c'était je me suis dit bon soit euh, Mansour Faye wala ku jege Mansour Faye wala ñu ko jege dañoo woo Ngone ne ñu ngi dem genre c'est la communication que j'ai vu mm. et cette forme de comme je la trouve pas pertinente su fekkee loolu la su fekkee du loolu ngoone certainement à ses réseaux elle elle travaille bien. da nga bëgg a ne sincèrewul ci waa ji. non non non non ah, je j'interprète pas je dama ne c'est c'est une forme de comme boo xam ni à adhère pas parce que maykul sense kilifa boo xam ni 12 ans nekk nga fi gisuñu la benn yoon boo doxee de but ba but départ fii waax yi dem ba fee nu a gis nun <laughs> dëgg wax bi waaw lu tax nu kaa war a gis jamono bi. waa waay sawaay ma xaw ma tiit u ñàkk te dama ne. dox te dox baa sore. xulil hmm. dox baa sore sax. fa mu départ ma nga naan waa kii xanaa moom lu tax oto bi mu egg ci buntu ba rek mu wàcc dugg. ci jamono doo ko gis muy dox. kon off nag daa <laughs> mais ci jamono laa la wax. ci jamono doo gis image boobu doo ko am. non dafa dafa moytu oto sax ci biir. waaw <laughs> mu kooku mën ngaa dee moom doo ko xàmmee. xam nga lay wax. <laughs> kii nuroo nag diw de. kilifa bi. kilifa bi. kilifa bi Mansour Faye. dem def déclaration jëli fiche de. mayaat leen vidéo bi c'est normal. y plus normal mais bi muy njëkk a def bi mu kaa njëkk def. Hmm. boobu gisuñu ko. waaw ah, lu tax nu war a gis bi dox baa xulil ah. ah. simple ba dee <laughs> xulil souriant xulil waaw léegi man waaw yow wuy ma nanu baal rek kilifa bi fay <laughs> waaye jàkkaarloo na fi ak journaliste menacé que merci beaucoup franchement nu ngi kaa nuyu Babacar la personne qui menaçait le journaliste au temps boo ci delluwaatee ma porte la plainte nanu baal rek nu wax loolu ce rappel la boo ci boobu affaire bëri nañ doole. boo ci. ñuy séddale ceeb bi. boo boo ci delluwaatee ma ñàkk boo ci delluwaatee ma ma la ma ma kii la xulil. Hmm? c'est pas la même personne. Ah, non la la personne si tendre et douce et respect mais si si collaboratrice par rapport à la scène. man dinaa dem di jëli kilifa bu toll nii dinaa dem di jëli euh, fiche pour pour wane ni que am na ma lang ma. waaw waaw waaw moom la moom la ma doon wax. waaw léegi waaw non c'est-à-dire dafa am loo xam ni déggoo man la du communication bu baax. ah est-ce que waxul rek ne aw ma lu may nëbbu. ci communication bu ah, xel ma dal ma dal non non. c'est-à-dire est-ce que nekkul ne aw ma lu may nëbb. mais lan moo fa yóbbu Ngone. est-ce que moom moo fa yóbbu Ngone. wala Ngone moo demal boppam par hasard. est-ce que c'est normal tu as été ministre en entrant en fonction tu as déposé ta déclaration de patrimoine quand tu sors des fonctions ministérielles il faudra retourner à l'OFNAC pour remplir une fiche pour ñu mën a comparer. dama bëgg a bëgg a bëgg a expliquer lenn lu simple te compliqué wu. Hmm. kilifa yu bëri fii Sénégal fi ñuy daanoo ci communication la ils n'ont pas de bon conseil. Mm. nañu baal non non di baaxul dal na dal na gouvernance bi fi nekkoon manque de conseil cest à xalaat yu baax ma dafa am loo xam ni boo ko defee redondance la tey quel est l'intérêt à montrer moi le sénégalais que waaye ouais, voilà yow yow nguur bi wàcc na bërki dem tey am problème def ko te soxlawul image c'est comme c'est comme par exemple euh, nga nga nga nga téye micro bi. ne yi lii micro la te ñu xam ne micro la amul sens. à part lui na ñeneen ñu déedéet moom bosom nga gis. bosom lañ gis waaw. mooy mooy mooy confirmer ou mel nii luy confirmer ne que dafa nekk lu ñu structuré lu ñu programmé pour wan ñu ne soi-disant waa léegi sax balaa dara kafi yàkkamti lenn ak kafi tiit. ah tiit mel ni ku ragal dara pourquoi. kilifa yi bu fekkee tu es tranquille il y a pas de problème il y pas à justifier à montrer à senti de la communication te pour man du communication bu baax daf laa gën a dugal sax Aliou li mu wax sànq c'est extrêmement grave l'histoire de <laughs> de Ousmane Sonko par rapport à la maison Ouest Foire et cetera loolu je pense El Malick toog na fii apporter na ci des précisions je mm. pense je me rappelle plus de ce qu'il avait dit mais am na mu ci wax mais li gën a graaw Aliou wax ko fii wax mu gën a graaw lool te mu nekk yi gëstu. loolu loolu danga ko war a def dossier sax génn ko le mandat. mooy 40 milliards 40 yooyu ah. soi-disant conseil mais loolu. dama la ci rek non yooyu yëpp waaw mais en posant même la question. waaw en posant la question. waaw waaw en posant la question. en posant la question en posant la question oui. bés bu jotee ma dinaa def li ma war a def. ah, ah. muy génn la mandat moom tellement envoyé une bi. boobu moom du ma xool ma ne bu naree génn la mandat. Hmm? jox ñu une bi. ñu seetlu ko si si si c'est-à-dire que du du vraiment euh, image bi moo ko gisee au lieu ma am ci ci sentiment wu voilà c'est bien dama ci am sentiment wu dommage quoi parce que l'attitude ou les attitudes. waroon na mën a mën a demee beneen c'est comme quand j'ai aperçu ci prestation de serment bi xaw ma bi bi bi kilifa bi jógee jam ñaajo di dem au palais ma gis la petite courette du président ma xool leen ñoom ñëpp ma ne ndeysaan ñii ñoo sànq Macky Sall voilà des gens ñii ñu ngi nii taxaw nii nag mu war a dem nag ñu ñu war ko nag dar ko ni dar men dara war a ànd ak moom dem xulil xulil nu nu nu nu ngi taxaw ma lay mais j'ai regardé l'image j'avais mal j'ai dit voilà ce ce ce ce président il l'ont anéanti taw daanoon doog moom taxaw nag taxaw nag ñi njool ñi gàtt nu kaa gunge. si yooyu nag laay wax ne nguur bu bees bi faites très attention à la petite gourette. kenn du leen baax gis nga président mm. Bassirou Diomaye Diakhar mm. Faye am na benn cercle boo xam ni hyper nga terrain stratégique. boo xam ne ñoom lay wax nga ba fay sa micro te yaa ngi wax lu am solo. ño dama ne cercle bi moo waxal ñu jege ko lool ñi nga xam ni président bi dina nekk ak ñoom du matin à la nuit euh, diw kii waaw kii fi mu toll ñooñu cercle boobu di ko daje. Hmm. yàlla na ñu doon nit yëpp baax te rafet xol te dëggu ragal yàlla te yàlla bu ñuy doon naankat ak tuxkat yooyee. Hmm. wax ak dégg c'est de la lucidité qu'il faut à la tête de l'État. à un moment donné on en a souffert. ñi si gën a soxor du ñu naan de ñi si gën a soxor ñoo ci gën a lucide waaye xol yee nanguwul. par exemple. Mm. mais par exemple mais damay wax ni cercle boobu daal su baaxee. am na nag loo xam ni ci président bi lay jóge mooy transmettre onde yi bu ñëwee bu ñu ñëwee tegal ko fenn lenn mu tuuti loolu bu ko defee ñoom dootuñu ko defaat ak yu ni mel looloo koy mais président Macky Sall da doon bàyyi def di demee lu benn nopp aram aram aram daf la contrôler gis nga post bi mu def Facebook rek président bi mer nu commencé dar arab yooyu noonu doxut doxut jërëjëf <laughs> jërëjëf euh, euh, Passa ah euh, di leen remercier yéen itam <laughs> ñi toog si plateau <laughs> ak yàlla suñu borom yàlla lii kañ laa ci génn. muy <laughs> suba déggoo sax nee naa sax Cheikh Omar. am na ñoo xam ne naa fi laa gujj di ba <laughs> dégg la ah ngeen fi dee. dëgg non mais sans chaque jour loolu la ñuy seen émission bi neex na waaye gudd na. waroon ngeen bàyyi xel ci Dumbuya bi nga xam ne ça fait trois ans mi ngi coup mu ñëw taxaw biir biir biir Sikaat gars di ko tàcc. oui parce que c'est un leadership nouveau. voilà ak man mi sax trois ans mi ngi téye mi ngi téye nguur gi. voilà dafa am rek la ko jëlee lan la ko jëlee. mi ko téye la parce que ça fait plus de dix ans que ne Alpha Condé nekkoon fa di violer la constitution. mais que y a un nouveau leadership nouveau en Afrique. combien de mois ci ado Guillaume Soro. ñu dégluwante. man maa ko tàcc ko Ado Guillaume Soro. garaawul boo déggoo ah yëg nga. il met des croix aux jambes. franchement merci ci ci message ci message bi ci message bi pour wax la ni xam naa li ngay wax merci beaucoup. mooma mooma confirmé ko mooma moom la mooma mooy Mbàkke Mbàkke maa ngeeg numéro mag lépp am naa ci dara mais hmm. merci beaucoup parce que hmm. dem naa de waaw non fa nga doon ñëw ñëw fa non man peut-être que c'est de la naïveté loolu man la nga dem wax mooy Mbàkke peut-être mën na nekk de la naïveté mais xam nga tey lan laa dul nangu ci suma àdduna hmm. pas Assane mii ma xam ko depuis may nekk underground bi may fréquenté pas Assane ba tey musuma ko gisal mu wan ma biiram ak biteem ma xam ni Pa Assane mi lii la lii la am mënuma xëy dégg suba foo xamante ni ma toog fa ñu ne ma pas Assane am na leneen dama naan xamaluma ko loolu te mhm. amut mhm. sérieusement man loolu mooy suma problème mhm. Ousmane Sonko kii wax na ko léegi ci début bi quinze ans ku ko def impôt et domaine ngay dem contrôle saa boo demee contrôle saa bu la neexee chaque mois tu peux te benn au mois cinq cent millions chaque mois chaque mois koo indi redressement mën na la mën na la mën na la mën na la dóor benn cinquante millions wax dëgg yàlla loolu yëpp mënuloo ko bàyyi di ñàkk xorom ci ay benn parcelle sérieusement sérieusement am na loo xamante ni meegul sens man de li ma gëm mooy nit ku sell la nit ku jub la il a un rapport extraordinaire avec l'argent mm. sérieusement Mansour Faye bi damay laajte rek moom la fi moom lañ fi waxoon ni doomam dafa am kii bu buñ évaluer mu nekk ay milliards. Ah? benn gétt te loolu Mansour Faye su ma jàppee douze ans la nekk ministre <coughs> waxuma ci doomam bi douze ans la nekk ministre mais douze ans ku ko nekk ministre le salaire d'un ministre na d'accord na nekk dix millions wala vingt millions sax par mois non na nekk vingt millions may naa ko mu nekk vingt millions boo ko calculer pendant douze ans du nekk sax milliard wala bu ko nekkee mooy loolu te kenn du dee xaalis bi di ko dajale sérieusement jiiñu ma nag jiiñaatewu ma kilifa comme def na def déclaration yokk ci ah, yàlla lépp leer rek yokk ci kilifa euh, au-delà de la euh, au-delà de la fonction ministérielle la trentaine d'années au service des impôts et domaines ah, booy lem ah, ko ci am seen déclaration yëpp dara nga dugal numéro bi s'il te ngeen di wax nga war a wax télé bu baax bi télé bu baax bi. dix millions d'abonnés ah, finalement c'est un ah, c'est un bateau avec un capitaine. ah oui doy na waar c'est un bateau qui tàng. alors dama damaa téye rek. non yow. gërëm ñëpp sant ñëpp partenaires yi. mooy victoire Diomaye bi rek ñëpp ah, dugal waa ataaya ji ñu ngi leen di gërëm bu baax waa Bernde. ak macha allah ñu ngi big up ci ndox mi ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm di woo yeneen partenaires yi aussi. ñoom it ñu ñëw teew ah. Papicos wax démb Papicos moom mu ngi am na beneen partenaire buy ñëw. incha allah comme euh, Papicos moom na fexe ba yére bi may jox na dàq bu jomaay bi na. c'est pas parce que man eh, ànduma ak ñoom moo tax ñu may def yi may laaj numéro arab ma ñaan la ko. waaw Papicos son numéro c'est 77 386 76 03. good voilà. donc. Euh, mooy li ma la wax yóbbante naa la ko def fexeel boo ko. si man Papi Sow Papi Kos Aliou Sow nee na na ah. dàqale Diomaye. Ah, ah. waaw Cheikh Omar Kalla tamit nee na na dàqale Sonko. non mat na trophée bi kay wax nañ ko. ñu